de am kilifa est-ce ay dégg voilà ñun dañoo am kilifa xam lu ma la loolu kasa la. d'accord kon baatu kilifa moo tax wax mooy loolu mais. loolu moo tax ñu bàyyi mu sedd sinon ba heure bii ñu ngi yëg ak a wàcc. xam nga mhm. mais injustice bi nga xamante ni moom la moom lay teg si deru sénégalais yi. Mhm. surtout ñu muy liggéeyal. ba pare bu jugee si kaw di jéem a affiché ni moom mooy moom moo dëgg moom moo baax. moom moo mhm. juste. loolu laay dénoncé pour démasquer ko pour nit yi xam ni kii baaxul santul yàlla. xam nga ma la te maay lancé message. Mhm. Guy Marius mhm. di lancer message Ousmane Sonko. Mhm. injustice nañuy xeex système bu bon bu nekk Sénégal nañuy xeex loolu lañ fi bëgg jëlee. Barthélemy Dias mënul ne saa yoo xoolee ba pare di def injustice boobu noonu si ay citoyens sénégalais est-ce que ay dégg. voilà te yàlla a tax. a dem Sonko rek ku ma fëgg ku bi laa àndal. man sama yoon si Ousmane Sonko sama yoon si. Macky Sall sama yoon si keneen ak keneen man askan bi saa moom ma ñor te xama te xama si lan parce que ay porteur de voix nañ di waslu àq di def yàlla rek a tax est ay dégg mais xam lu tax Ousmane Sonko waa Guy Marius Sagna ma leen di lancer message boobu parce que dañ taxaw temm ne injustice dañ fi bëgg jëlee Sénégal munoo mhm. leen wax loolu ba pare kenn ñëw jóge fee ñëw xëy na leen mubboo wala bëgg xool intérêt politique am wala nekk maire de Dakar wala leneen leneen mhm. ñëw ne gaan yéen lay àndal si xeex injustice boobu ba pare di dawal injustice si suuf mhm. li ma la wax bu dul dëgg na ma porter plainte même ma xoola fi may terminer mhm. ay ñoom Ousmane Sonko Barthélémy Dias nañ ñëw preuve preuve laa leen di jox tangible preuve yu leer nañ nañu woo tribunal ñu joxe preuve d'accord xaa leer na nañ loolu jërul saaga jërul tëbaka dal jërul